bëggatuma am gouvernement boo xam ni day signé engagement te kenn du ko respecté nit sax warul signé engagement bu mu du respecté à sama gouvernement loolu dana jub incha allah Sénégal bëgg naa jàppale daara yi ak ministère bi may créer ba jox leen subvention bu am solo kooku mesure urgente la bokk ba xale yi nekk si mbedd mi xale yi bañati di yalwaan parce que fa nu nekk daan leen jàppale ba nu mën jàng te ministère bi dana waxtaan ak sëriñ si ak boroom daara yi nan la noo fexe ba dugal si biir daara yi jàng métier yàgg naa leen wax ni métier xam-xam am na solo waaye xam-xam il faut mu ànd ak métier su ànd ak métier si ngay man am ëllëg loo mën jariñ sa réew yooyu yëpp dana fexe ba jëmale ko kanam dana aussi supprimer le conseil économique et social environnemental assemblée nationale de l'UNESEC, de 165 députés de l'UNESEC. supprimer le haut conseil des collectivités territoriales damay supprimer la commission nationale du dialogue des territoires Nous yëpp solo aussi régler problème bi nga xamné mo concerner les contrats pétroliers et gaziers dana ko renégocier parce que lo xamné dafa mën indi Sénégal koppar man yok ay xéewalam kèn du ko bayyi gannaaw dana régler problème mesure d'urgence yi xale yi nga xamné dañ leen yobbu ci école privée te jànguñu danaa faylu na mu gën gaawé lu ñu yoreel école privée yi ba xale yi man jàng danaa ko régler danaa régler lépp loo xam ni dafa doon problème mu bourse étudiant yi danaa fexe ba généraliser bourse bi na mu gën gaaw mais la ma leen waxoon mooy danaa góorgóorlu ba jàppale bu baax filière scientifique yi danaa jël ay mesures yoo xam ni dafay concerner justice bi léegi wax naa ko kooku mesure urgente la donc d'abord président dootul jiite conseil supérieur de la magistrature daanaa waxtaan ak acteurs judiciaires yépp ñu mën réformer de manière considérable de manière considérable la justice te wax naa leen ni ministre de la justice waratul doon Ko xam da fay dem di organiser ay meeting di taxawal partem ba ñepp xamni fi la far président Macky Sall bëggul dégg kenn dafa tax guma limu bëgg rek lay def motax tax mi ni fi jëlé Ali Ngouille Ndiaye nak man limay doxal moy li Sénégal yi bëgg ak li bëgg ak li man jëme kanam yoon jadul nga ministère de l'intérieur ministre de l'intérieur bok sa parti di doon maire dëkk di doon sa responsable parti bëgg organiser ay élection jaaduwul élection nañ ko jox personnalité boo xam ni mën na ko yor te nag sama position jëmale ko aussi ci Sénat mooy Sénat aussi am na ay jafe-jafe yu bari ba li nu war doxal doxalun ko aussi dañ ko fee jële indi yeneen beneen organisation boo xam ni mooy yor élection aussi am na engagement bu may jël seen kanam parenage bi jëmalewul dara gan jëmale lu dul gannaaw démocratie sénégalaise